su ma ñëwee ba fii nii si passerelle bi nii am client bu demandé arrêt ma taxaw di ko wàccee bon bi ma taxawee dama jékki-jékki rek gis ñaari deux personnes génn yor ay xeer ay ngandi xeer ah day taxaw jàkkaarloog man face à face may saaga bon bi ñuy saaga peut-être maa ngi gis beneen gain bi yor falaam bi quoi taxawee à côté. mooy cocktail bi mais mi ngi takk flamme quoi.

da iphone kalan da non jol iphone kalan da da no camoufler non sen beudi rek mo lay jox image da buñ waxe yang koy deg ni pensé porte bi porte bi ubé gu am ñu dal jëf jëf ci biir am na jël ay téléphone ak ay sac man bima wacce ma len sen bi ni bi ni yégal passer ak di demone ma len sen sen yégal ni jaar ni def sen